commerçant yi booy xool DPI yi amul impact fiscal maanaam du taxe bu bees bu ñu la fay loo du dara dañ la wax juste que ne da ngay yëglu ci ay anam yu ñu changé te DPI bi dafa may avantage avantage mooy déjà dafay créer équité entre commerçant yi ndax ca ba woon DPI ba la ci amoon mooy que existé na depuis longtemps mais dafa am ñu ko doon utiliser mooy souvent ñi nga xam dañuy yëngu ci secteur formel waaye ñi nga xam dañuy yëngu ci secteur informel daawuñu ko utiliser léegi maintenant dafay créer benn équité de traitement pour permettre à ce ñu mën a mettre à niveau mm-hmm. te loolu gëm naa ne lu ñu war a lu la ndax euh, équité dafa baax ci secteur boo gis mm-hmm. fexe yamale ñëpp lu tax en fait c'est-à-dire bi am na ay frais yu ci nekk mais frais yi mooy frais yi ci mosoon nekk yokkuwu dara yokkuwu ci dara changé wu ci 14000 mhm. francs la booy xool frais yëpp bu ñu ko bu ñu ko boolee frais yi ci nekk yëpp 14000 francs la mhm. donc yooyu imaginons mën nga sax am une expédition buy ñëw boo xam ne 100 conteneurs la mhm. benn déclaration préalable à l'importation